mbokki jullit yi ñu xam ne sunu borom tabaraka wa taala bind gim bind asamaan ak suuf am na lum ci jublu bind gim bind ajjana ak sawara am na lum ci jublu téere yi mu wàcc ci yonent yi digal leen ñu jottali ko am na lum ci jublu yónni gim yónni yonent yooyu sax am na lum ci jublu sharia bi mu teg ak lépp loo xam ne làmboo na ko sunu boroom am na lum ci jublu séddalikoo gi nga xam ne nit ñi séddalikoo nañ ñii doon ñu texe ñu ci des doon ñu texee di sunu borom am na lu mu ci jublu dund gi nit ñi di dund nekk fii ci àdduna ba ëllëg ñu jekki-jekki faatu ñoom ñépp sunu borom tabaraka wa taala taxawal yowmal qiyaama ñi teg ay balance atte leen samp siraat nit ñi di ca jaar ñii jëm àjjana ñii jëm sawara laaj ba ñuy laaj ci biir bàmmeel nit ka ak taxawaay ba ñu koy taxawal ëllëg di ko atte ci kanam boromam xuloo ba ak ba ak ya nga xam ne nit ñi ca la ñuy ànd bennoo ca ak ya ñuy tàqalikoo yooyu yépp suñu borom tabaraka wa taala da ko amal fii ci kaw suuf ak amal ko ëllëg gannaaw ba nit ñi faatoo fekk lu réy la ci jublu jubluwaay boobee mbokki jullit muy jullit yi ñu joxe àqi sunu borom tabaraka wa ci wéetal ko doon gim doon kenn ñu nangul ko ko sunu borom nee na binduma asamaan ak suuf ci po ak caaxaan su fekkoon ne fo ak caaxaan dafa nekk fi man nee na ba ma di ko def duma leen ca boole yéen kon foofa laa koy defee foo xam ne yéen du ngeen ko yëg du ngeen ko gis kon fii ma leen indi la tax ma indi leen fi po ak caaxaan indiwu leen fi sunu boroom waxaat ne waaw doomu aadama ndax dafa yaakaar ne dañ ko bind rek sànni ko noonu tëggal ko mboyoŋaan ne ko defal lu la soob bu ëllëgee du dajeeg dara mu ne déedéet sunu borom nee na bu dul woon jaamu gi ngeen koy jaamu kon du leen faale du am ci yéen benn soxla kon ku jàmmoo yàlla yàlla am ci yow soxla sunu borom ne binduma jinne ak nit lu dul ñi jaamu ma nee nag bëgguma ci ñoom wërsëg bëgguma ñi jox ma lu may lekk ndax man may ki nga xam ne maay wërsëgale maay borom kàttan gi man loo kon jinne ak nit borom bi tabaraka wa taala bindu leen ngir ñi jariñ ko lu toll ne tarfatul ayn li nga xam ne yi àdduna fii loolu la ñuy bëgg ca seeni jaam la ñuy tuddee jaam loola sore nag li suñu borom tabaraka wa taala bëgg ndax nit ki ak kam jekku moo xam turu ko mën a jox moo xam ak jaam la wala ku koy topp la wala lu mu mën a doon boo ko seetloo na nga gis ne li ci koo xam ne eh, ku mel noonu la diggante sang jaam dox seen diggante wala ak moomeel wala lu nuroog loolu da ngay gis ne ka féete kaw kooko mooy jariñoo ka féete suuf moo koy jox muy lekk moo koy defal lu bare bari loo xam ne lu muy def la suñu borom tabaraka wa taala nag ñi moom sang leen doon seenub sang moom moo yor seen wërsëg moo leen koy jox moo tax mu ne ndax waxal nit ñi ne leen ndax yonent bi lay waxal ndax jaadu na may wut genn kilifa wala lenn njiit wala ku may jaamu kudul ki nga xam ne mu bind asamaan ak suuf te xam ne ku lekk moo la jox nga lekk te moom kenn du ko jox mu lekk kooku ci melokaanu sunu borom la bokk mu ne wax leen nee leen dañ ma digal ma bokk ci ñii njëkk a jox seen bopp suñu borom tabaraka wa taala te nga ne leen damay wattandiku lépp loo xam ne luy nuroo bokkaale la kon mbokki jullit yi jaam bi su fekkee xam na loolu lépp xam na ni yàlla mooy ki moom mooy settantal mbir yi moo bind asamaan ak suuf moo wàcce am ndox ci asamaan si moo cay saxal loom mu ci bëgg a saxal